salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi baaxoo ànd ak 24 euh, actu tey nag ñëwaat nañ seen beneen numéro tey ñi ngi ñëw fii ci tuubaa rawatina Daaru naan barab ba ndax boo nee Daaru Mannaan rek da nga ko war a xàjjale Daaru Mannaan barab ba mbusoobe Touba bustaanul muhaarifiina bustaan ni ñu koy waxee ñu fekk fi ki nga xam ne moom moo di chef de village bi opérateur économique euh, Alaaji Cerno Njaay Xutbu sëñ bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lay siyaare. Ah, ñu ngi leen di delloo di leen sant di leen siyaar di tàmbali suñu wax ak suñu ñaan ci sëriñ Muntaxa mi nga xam ne dara ñoru ko lu dul diine lislaam ñuy ñaan suñ borom liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal suñ borom subhaanahu wataala taala di ko liggéeyal ngeen gi mi deef sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal maamam xaadimu rasul suñ borom defal ko ci ndam nim ko sumbe suñ borom jàppalee ko ba mu àggee noonu te suñ borom yàggal ko fi loolu ci wéral ko waaw di leen nuyu leen siyaara di leen sant di leen ñaan ak suñ borom defal leen fi ngeen bëgg seen rajo bi ak télé bi àgg fi lépp suñ borom àggale ko fi ci barke Xaadimu Rasuul jërëjëf si nuyoo bu matale boobu euh, comme ni nga ko waxee xam naa dañuy daal dugg si li nga xam ne moom moo di fii di cosaan li nga xam ne moo di daaru man naan bustaanul maarifina fi nga xam ne moom mooy Bousso bi waaw fii mooy fii ñuy wax barabu sëñ Afi Bousso sëñ aafi bu sa tëdd fi aafi bu sa ak soxna awa bu seex waajur Cheikh Modou Fadal ñu bokk lépp sëñ bu soobe ak soxna jaaratulaay ah di jëmm joo xam ne nii xañ na am na ñu ko umpale woon waaye nag sëñ fal daanaka wax ne ko fii nga sonn da toog ba fang lépp loo xam ne nii sëñ Fallou diisoon nañ ko cam xaw koo diis danaan demal ba fa sëñ aafi bu sa nga diis ko ko loo fa diis loola sotti fuy nag mooy barabu sëñ aafi bu sa ñu koy wax bustaanu arifina moom la sëñ waa wax na seytaane xamu ko ndax ba mu fi féetee toog na fa bind fi ñaari kaamil fekk ku tedd ki njaareem yëkkati ko jox ko ko mu ne ko foo ko bindee mu ne ko fa ñuy wax daaru maraam bustaanu arifina mu ne ko foofee nga bind lii saytaane xamu fa demal nga toog fa àggale fa sab liggéey fi la toog ba fi suñu borom dikk ak coobareem waaw fii mooy bustaanu arifina jërëjëf euh, ginnaaw boo ñu xamalee bërëb bi nga xam ne moom moo di daaru mën naan ni ko waxee ak yi fi aju ak mbóot yi fi nekk muy bërëbu ziar di bërëb boo xam te ñu fàttali ne day am xew-xew bu am solo boo xam dafay dajale ay taalibe waa kër gi njaboot bi ñëpp di fi ñëw di ko di ko fi màggale waaw am na xew-xew bu mag boo xam ne Cheikh Ahmadou Fadal moo ko tànnaloon Sëñ Afia Bousso muy ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru koor gi nga xam na ni sëñ Fàllu moo ku yabaloon ki ñuy wax sëñ Saaliw Caam ak jàngkati alxuraan yi yenn fee jàng alxuraan fanaane fee jàng xasaay ba bët set wecc mu mu ne waxtu yu saa yu dellu seetee nañ ci dundale barab bi di ko ñaanale sëñ Xaafiya Buso xew xew boobu muy nekk koor de de ci daa sàkku nag képp koo xam ne suñ boroom dimbale na ba nga teew ci wala sa xel nekk ci rek aay joo am suñ boroom faj ko loolu boobu xew ko am na fii waaw. jërëjëf euh, loolu lépp ngir fa ko ci barab bi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan gën a xam ne benn bërëb la bu nekk fii ci biir Touba boo xamante ni euh, foofu tim xam naa fi la ñuy tàmbalee muy bërëb boo xam ne nii fu fu naqaree dem la rawatina jamonoy nawet ci jafe-jafe xam ne moom moo wër barab boobu. Euh, barab bi. daa bokk ci ruqi sëriñ Touba yi bokk ci barabi sëñ Touba yi nga xam ne sëñ bi fonkoon na ko lool waaye am natt bu ñu ci teg boo xam ne nii wax dëgg yàlla suñ ci amoon benn ndimbal dana saafarawu ndax mën naa saafara wu maanaam li ci njëkk mooy la tàmbalee ca talibee ba ci barab bi rek soo ko xoolee matut en kilomètre mboolem kilifa yi kuñ ci yaakaar wax nañ la ko ci wàllu tëli suñ la waxee wax ju jëm pu ngay wax danañ ko defar defe naa dem na ba ci président de la république am na danañ ko defar ak kilifa yi yi fi nekk yëpp Touba kenn ku ne dugg na sa nopp ca ma li ñuy liggéeyal sëñ Touba kenn da cee gënt yi yayoo sëñ Afia Bousso ndax moom dafa jaayoon am mbokk mi jënde ko taalibe topp ci ginnaaw sëriñ Touba kenn lépp lu ñu def ci Touba rek bérébam bi yayoo na ko waaye nekk na béréb boo xam ne nii béréb bu xaw a naqaree ñëw la ci wàllu nawet foo takk ndox mi romb na ko la tàmbalee tëli ba ba ba ngay agsi fii ba wër barab bi lépp am ndox lay doon doo am fenn foo jaar loolu itam bokk na ci li nga xam ne naqari na kilifa yi fi dëkk naqari na askan bi naqari na lépp loolu nag ñuy ñaan ñi nga xam ne nii ñoo ko mën a saafara ca war koo saafara ñu jàpp ñu ci ba loolu saafara loolu day soxla nañ ko waaw mu mel ne bërëb bi ni nga ko waxee wàllu assainissement bi ci wàllu canal wàllu yoon ni nga ko wax yooyu te tim gis nañ ne barab yu bëri ci biir Touba rawat na bërëb boo xam ne dañ fay tudd waxuma di tudd ku tedd ki rek waaye am na ci bërëb yoo xam ne sax benn waaye moo fay dëkk rek kon nag yelloo na barab bu toll nii nga xam ne kilifa gu toll noonu ci njabootu ku tedd ki Serigne Touba yëpp dañ fi faral di ñëw ñoom itam di nemmeeku di sàkku si ay barke fii ci barab bi ngir ki tëdd file waaw loolu day lu mu yelloo la waaye dafa mel ne dañ koo fàtte wala xamuñu illay barab bi dëgg dëgg ndax yàpp naa ne suñ xamoon lan mooy ilay barab bi day loolee dana saafaraw ca gëm naa ne alaaji baara yal na yàlla dolli leeram yi dolli ngërëm maanaam yokk leeram bu baax a baax su fi nekkoon ba nëgë ni day waxuñu na lii dana saafarawu carrément waaye li ci ëpp lépp dana saafaraw ca wóor na ma ne nii su ko duggee woon nii ci nopp sëñ mun Muntaxa yi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa dana saafaraw waaye am na loo xam ni umpale na ko ci yëgu ko ci yëgalewuñ ko ko noonu waaye lépp lu ñuy def ci tuubaa rek ak fu ñu ko mën a def ci ruq bi rek lu ko gë lu fi gën a yey barab bi amut ndax kenn dafa gënt sa sëñ sëñ afi bu sa sëñ Touba murit saarix la ku liggéeyal sëñ Touba la ba am ngërëm kon yell na lépp loo xam ne dëkk bi am na ko rek war na koo am waaye euh, fi mu toll nii day xañ nañ ko xañ nañ fi lu baree baree baree bari muy wàllu assainissement dara amu fi muy wàllu tali muy wàllu ndox mi muy wàllu kii nun danañ toog léegi jéeg juróom benn weer yoo xam ne nii robina du xel dara du kii danañ toog ñetti weer ba nii may waxee ak yéen benn robinet bu wër fii bu ubbi amut déedéet dañuy rootaani ci lañ dëkk nag. mu mel ne bërëb bii tim ci wàllu yaatuwaay ci xayma ay population bu am solo ñoom ñoo fi dëkk tim te tim ku ne xam ne ndox tim daa bokk ci li nga xam ne wàllu euh, kii yàgg nay am jafe-jafe fii yan forage ñoo fi a jege. ah am na forage bu fi jege lool boo xam ne nii suñ digganteeg barab bi war naa mat 500 mètres alaaji baara moo ci ci nekkinam moo fexe woon ba forage bi am fi forage bi keroog bañ ko fiy samp di ko planté ku ñuy wax saam moo nekkoon hydraulique bu njaareem ba mu dikkee bañ xool ko ba xool fi ko war a def dana forage bi yey mën naa yore fukki kilomètres ak ñaar ca nun suñ digganteeg forage bi 500 mètres matu ko waaye nun du am dox kon loolu yi da lay wan ne saboté la yow mii di wax ak yow ànd na ma ak yow dikk ñu gasub tiwoo fekk tiwoo ba ñu dagg ko bu sene ko ba xam ne tiwoo ba jógee ci forage bi ñëw fii sax dañ ko dagg bu sene ko wa daaw la wan ñoo àndoon ba dem ba tiim for ak ñu gas kii baak yëpp nga nga xam ne mbir mi it am na sabotage ndax forage bi suñ ko bàyyi woon mu dox na mu war a doxe li wër dër ma ran gépp mën na koo yor waaye danañ toog ay juróom benn weer ay juróom-ñaari weer ca duñ am ndox duñ def dara loolu it ah, bokk na ci sabotage bi. ci wàllu lumière yi ñu dikkaat ci ci wàllu éclairage public bi ak yu bëri def ñu ko xam tamit fii tamit bërëb lu xam-xam la bërëbu daara la bërëbu jàngukaay la ay daara tamit daf fi nekk ndax ku ne mbusoo mbusoo bi xam ne ñoom foofu dëkku xam la bërëbu xam-xam la. waa jërëjëf loolu dëgg la fii moom suñ dee wax wàllu xam-xam def na fi boromi xam-xam daara alquran yi bari na fi lool. waaye leer gi fi war a am dëgg-dëgg ci wàllu agrace manqué na bañ fi amee ci ñaari mbedd yi ay làmp ak léegi matagul ñetti weer waaye ci dëndam lañ doon dund ca it taxagun mu mat dëgg-dëgg ndax ni ma la koy wax rek béréb bu mel ni jëmm ju tedd nekk fi nii ca nam war a amee ci leer sax ameewu ko loolu jaaruwut ni nga xamee ni lañ sedd li ñuy sedde béréb yi nekk Touba yépp loolee dafa ko yelloo yeyoo ko ci pour mu am ko waaye manquement am na ci bu baax a baax a baax ba tey loolu ñu ngi koy jooytu ñi nga xam ne ñii ñoo yore dëkk bi saytu ko di mbokkum ñëpp kër sëñ Tuubaa gépp fu ci ci nit nekk ak nu mu fa nekkee rek mbokkum sëñ Afe nga lañuy ñuy séddale di ko jox penc yëpp sëñ Afe da ko yeyoo ci mu am ko kon loolu ñu ngi leen ci jooy ci suñ kàddu nit ñu ci mën a dimbee si yàlla tax ak sëriñ Touba wàllu làmp yi di éclairage manqué na fi moom itam bokk na ci li fi manqué mu mel ne comme ni nga ko waxee ñi fàttali ba léegi ñi ànd ak waa 24 actu tey ñu ngi fii ci Daaru Marnaan bu soobee ci barab bi eh, ngir fas yéene xamle ak fi nga xam ne moom di barab boobu ndax eh, Touba tamit ku ne xam na ne am na ay bonne volonté yu fi dëkk rawat na ay kuréel yu mel ne ki Touba ci kanam tey yan message ngay lancé rawatina eh, kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy kuréel yooyu li liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. waaw sëñ moom dañ koy sant di ko ñaanal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba maama ak Cheikh Ahmadou Fadal. wax dëgg yàlla bañ njëkkee am jafe-jafe làmp bañ dikkee joxoon nañu bañ fa delluwaatee ci xamal ko na mel xamal ko nag béréb bi moom béréba am na lu ñu joxaat loolu it ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax waaye mën naa ne defaluñu ko sëñ Tuubaa la maamam la ko defal sëñ Afi bu sa maamam la ko defal suñu dollee it ñu jël nag waaye nag teewul nag def na ca ku defut di su ko wax ko ko ko def ñu sant ku sant it ñu dolli la in zakartum la azidannakum ah suñu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk fanam wéral cëram liggéey bii ñu ko dénk muy liggéey sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa defal ko ci réussir ñu ngi koy tàllal loxo it di sakkuwaat ci moom ndimbal ci bérébu maamam bii nu ñu ko gën a taarale ci wàll écrage wàllu assainissement luñ ci mën daal ñu def ko ca xam na lu koy yelloo la ku ne xam na ne Touba maanaam ci wàllu maanaam euh, commune bi nu mu demee seen diggante ak li nga xam moom mooy mairie bi Touba nan la nan la demee ak waa Daaru Mannaan mairie moom defaluñ ñu dara déet waxtaan wax dëgg ca la mairie dara defaluñ ñu ko suñ taxawee ne def nañ daaru Daaru Mannaan dara it waxuñu dëgg loolu moom aw aw ma ci lu ma ci natta Abdoulahat ka dara defu ko fi du leen xamul sax ndax xam na Daaru Mannaan wala xam na barab bi man jàpp naa ne Abdoulahat ka xamul Daaru Mannaan xamul barab bi dara lu mu fi def amut. mu mel ne programme Magal Touba bi ñu ngi ci lan message yi ngay lancé pour ñu fas yéene li nga xam jël nañ ko ci wàllu assainissement Touba ñu bàyyi xel fi nga xam moo di Daaru Manaan waaw bis bi day bisub jullit yëpp la bisub murit yëpp la lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci Touba gii di ko def ci penc yëpp jëmale ko ci wa bisub sëriñ Touba bi jëpp naa ne lu fi gën a yey Daaru Manaan gii di barabu sëñ Afi Bousso bi amut kon nag ba tey ñu ngi ciy lancé waat di ci sàkkuwaat ndimbal ci lépp loo xam ne jóg na fi jëm ci dëkk bi daal ñu bañ cee fàtte Daaru Marnaan gii nun daal ñu ngi sàkku ndimbal fàtte nañ ñu ci lépp nag wal commune moom dañ dañ dañoo jàpp ne commune amul Touba sax far man jàppoon naa ne euh, commune amul Touba ndax gisuma commune lu mu defal Daaru Marnaan ca ca li ñu war suñ diggante commune ñu ngi koy def commune mënut a taxaw na fay ñu impôt commune mënut a taxaw ne def nañ kii waaye nag lenn loo xam ne ni jógee na commune ñëw fii di suma ko man. ci wàllu santé wàllu euh, wér-gu-yaram paj meeg yooyu fii ndax daaru mën naan yan poste de santé wala centre de santé ñoom la gën a jege ñoo gën a jege. waaw euh, am na centre de santé bu nekk fii wax dëgg yàlla centre de santé boobu moom ñu ngi def liñ man ndax man ku ma kenn moomu ku defut itam mën a la defoo ku defit mën a la def nga ñoom nag. lañ man lépp ñu ngi koy def suñ jubee nawet bi ci wàll sibro bi danañ fi ñëw toppatoo gone yi su ñàkk jotee danañ ñëw lu lu xew daal danañ fi taxaw euh, centre de santé bi fi nekk moom ñu ngi def liñ man moom ci lii may waxit ragaluma leen bëgguma lu leen neex dañ koo def suñ ko defutoon it ni commune bi def rek laa leen di wax ndax euh, suñu yaakaar moom mooy Sëñ Tuubaa rek du keneen waaw ndax euh, seen diggante fii Daaru Manaan seen diggante ak autorité autorité politique yi fii am ngeen relation wala yeen ñoo xam dañ fi faral di bàyyi xel di ñëw fii ci bërëb yi la. waa léeg-léeg rek am autorité politique yi fi ñëw dikk wax ba doyal waaye dañuy wax rek politique moom politique la rek dañuy wax ngir ku leen jàppal suñ jógee lañ waxoon lépp bala ñu àggatali ba génn nañ ca bu yàgg a yàgg. mbirum politique waxu politique la rek waxu politique nag moo kawaroog naa la yam jëru dóor sa doom waaw. mu mel ne jamono ji gis nañ ne réew mi ak tolluwaay bi ni mu demee fan yëngu-yëngu yu bëri woon na ci wàllu ndaw ñi ndax tey boo amoon yow xal sa xalaat ci réew mi tolluwaayu réew mi lan nga ci gis. waaw tolluwaayu réew mi da moom wax dëgg yàlla metti na lool metti na ci ndaw yi ndax ndaw su waree tekki war a liggéey ca liggéeyut doon na luy metti loolu nag état moo ci mën a lépp état mënu ko waaye am na loo xam ne ni état mën na ko mu ñu jéem a sàkkal xëy ndaw ñi suñ mën ñëpp ndax dangay ngay gis ku jàng ba yeey kayitam xëy di taxawaalu gis koo xam ne nii am na métier am na lépp di kii di taxawaalu ci ñu xool ñi nga xam ne ni mën nañ li li li ñu war a def ñu jox leen ko ñu koy def ca bàyyi koy jox wàllu politique képp ndaw yi nañ leen dimbale ci yàlla tax ndax suñu leen dimbalee ñu liggéey lii ñuy def li ñuy wax mbëkk meek yooyu yëpp yàlla mën na leen cee dimbale seenu jaaxle doo nga tax nag wóor na yaa ngi dem ca xamoo ba xam da nga àgg wala doo àgg walanteeru ko it ñàkk pexe moo la koy def waaye soo amee lenn loo jàpp doo topp géej gi di dem est que du ci wàllu wàllu ñàkk euh, xam am xam-xam gi bu ngay wax moo waral ba ñu duggaat ci biir Touba ci wàllu ndox mi assainissement bi ñi nga xam ne ñoom lañ dénk Touba ci wàllu ndox est-ce que yow gis nga ne ñooñu ñooñu ñooñu seen man-man àgg na fi ndax Touba ni mu toll maanaam boobu bële ay at ñu koy jàmbat ndox muy taa ndox muy manqué. waaw xam nga loolu it ñàkk xam-xam la ndax suñu fekkee ña nga xam ne ni xamuñ yëkkati jox leen duñ mën a doxale xam-xam ba ci ndox mii nga xam ne nii mooy ndoxum Tuubaa mi fi mu toll nii para bari na problème am na forage yoo xam ne nii tey lañ war a kiisu maanaam dama laa bëgg a wax ne la su doon cent quatre-vingt euh, Euh, euh, kii 90 yëpp ci suuf la jëm ay fit la ca liggéey boobu nekk na liggéey boo xam ne nii man na metti na waaye ku ko defoon rek marutuwaa yi dana tàggoog moom première kii bi ñu euh, dagg ko carrément placé waat ay tiwoo yu bees mooy branchement bu njëkk bi font bi lépp ndox mi yëpp soo ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ngi ci suuf di dem ay fit la yi dem nab ah, bi itam aussi noonu la fi mu nii am na tiwo bu nekk fee jógee marché Ocass romb kër sëñ naa jëm ci jumaa ja Cheikh du baali jéem na ca ba sonn keneen jéem na ca soxna maam Faati Naawel woo na ma fi di ma wax wàllu tiwo boobu ma ne ko tiwo boobu même suñ ko defaree ndox mi mën faa jógee ndax nab la def fa forage rek moo fa moo ko fa mën a jëlee ca looy dafa laaj liggéey liggéey moom mu laaj defi su ko ci kon nag ndox ma du fa jógee mukk mu mel ne am na ay forage benn benn yoo xam defoon nañ ko nee na ñooy mooy moo moo moo mooy jël nab bi nee nañ forage yi du ci bëri ci dëkk bi paan na am na ci boo xam sax ñu koy signaler moo bu nekk buñ ko sëñ Thierno Bousso foofu ci Touba Mosquée. waaw loola it la koy def mooy rek lañ ca war a def dañ ca deful rek forage yi suñ ko defee nañ ko war a defee nab dana wàññeeku nab bi moom ko fee jële waaye dana wàññeeku bu baax a baax a baax ndax kër sëñ Thierno googu nga tudd jëm kër sëñ Modou Mamoun Niang wër noonu ba dem armeel yi lépp nab la bu metti ba ci kër foofu ma lay wax ci kii bi nab la boo xam ne bu bari ndox la lool na la koy def mooy forage yi mag courant bi doy ñu mën koy at di di yóbbu suñ deful loolu it def loo xam ne nii ñaari fan ñetti fan mu paanit amut benn njariñ ca loolu la ñuy def ndax seen yoon bi comme ni nga ko waxee diggante fii ak euh, tali bi matul en kilomètre naam su kon boobu ba léegi ndax kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu euh, ñooy autorité euh, autorité yi yenn yi ñi nga xam ñoom ndax fii arrondissement la daanaka su préfet ak préfet yooyu yeneen ciy déggante ak ñoom ci li nga xam moom wàllu yoon bi ak yeneen manque manque yi nga xam ne am na fi waaw yoon wi moom umput sous préfet umput préfet am umput Abdul Ahad Ka ndax ni nga xamee ni lañ xamee yoon yi nekk Touba ñi defar ko lépp ni dañ xame yoon wi yoon wi dañ ciy defagut seen liggéey yëgu parce que nag li dal mbusoo bi mooy ay sëriñ lañ du ñu wax du ñu def dara ca jamonoy léegi ji ku waxut duñ la toppatoo ci leen loolu rek la waaw comme ni nga ko waxee waaw wàllu mbusoo yi moom ku ne xam na ñoom jàng ak jiite yooyu rek lañ leen baax ndax ñooñu ñoo nekk si jumaay Tuubaa ji ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri ñoo ko yor fi tey boo amoon yan kàddu nga am yoo xam ne dañ koy tëjee li nga xam moo waxtaan wi li nga ci bëgg a ci loo xam ne ne xel àggu ceeg yooyu ci wàllu laaj maanaam ci wàllu mbusoo bi lay ci am lu ma ci tàmbale nañ xam ne ay citoyen lañ ay sénégalais lañ comme ñëpp xañ na suñ borom moo leen nattoo ñu féete woo diine yi waaye lépp lu ñuy defal kilifa diine war nañ leen koo defal suñ waaye nag nit su waxee nga def su waxut doo def loolu baaxut soo dee maasale ñëpp mënuñoo bokk yem moom su ñëpp yemoon am ñu gedd seenu cër waaye nag nañ xam ne ci lañ bokk nañ leen yëg jàppale leen ci wàllu adduna bii su ginnaaw ñu ngi ñu jàppale suñu wàllu àllaaxira bii su tudd doom jotee ñu jóg su jullee néew jotee ñu jóg ah li ci des muy wàll adduna bii di wàllu sayir bi nañ leen ciy jàppale lenn nag loo xam ne ñu ngi koy defal mbusoo bi ca wàllu sayir bi amut déedéet ndax ñoom du wax ci ca ñoom it duñ def ca yàlla tax la ñuy def mooy ka yoru làmmiñam di wax rek waaye nag yëguñu ni sax na mbusoo bi am na fi waaw ci it maa ngi ñaaxaat commune bi bu baax a baax ci ñu surtout Abdoulahat Ka Abdoulahat Ka moom dara lu ko war defu ko ab loolu laa wax nag ci moo ko bëgg mu féesit ragalu ma ko it man Thierno maa ko wax it lenn loo xam ne nii lu baax lu muy def ci dëkk bi la amut xanaa koy yàlla da ko fee teg sañuñu koo bañit ndax ndigal sëñ bi dañ ci ànd ak moom waaye daaru Marnaan gii day xamut fu mu féete suñ ko ne woon demal barabu sëñ Afi bu sa yaakaar naa ne da koy laajte donc mi ngi tabax ay école ak ay euh, poste de santé yoo xam biir na ay école yu mu tabax ndax daaru Marnaan ci li nga xamoon Abdou Lahad Ka defar ci Touba Daaru Marnaan gépp nañ ko wër nañ na lii commune bee ko fi def muy école muy poste de santé muy lu mën a doon nañ wër suñ ko gisee rek nangu na maa tëdd ñu rey ma waaw lenn lu fi commune bi def amut jërëjëf sëñ Thierno Ndiaye ginnaaw euh, bu ñu waxtaanee waxtaan bu am solo fàttali yi nga xam ne fàttali na ko fii ci la ñuy doxee sax siyaar ki nga xam moo di xalifa bi fi nekkal Serigne Afia Bousso ak njabootu famille Bousso bi yëpp rawatina sëti Serigne Afia yi ñoom itam ñu am kuréel gu am solo di taxaw fii ci li nga xam moo Daaru Marnaan tey ana lan ngay tàggoo rawatina fii nga xam ne fi lañ toll ci ndax sëñ Thierno di nga def politique. waaw politique day danaa koy def. Mm-hmm. ndax ku nekk sam réew ca bëgg sa réew. di citoyen war ngaa def politique waaye nag ni ñuy defee politique it kañi àndal mooy kañ am yaakaar ci mu dimbale askan wi waaye képp koo xam ne xam nañ ne doo dimbale askan wi jaraloo ñu jox ab jéego déedéet danañ def politique moom. waaw mu toll ki fi nekkoon nee na moom du demaat ci euh, jongante yi di ñëw yow euh, sa gis-gis lan nga ci xalaat ak bi nga yëgee ne moom nee na du demaat. man damay rafet rafetlu taxawaayam lu kàddam. ndax lépp loo xam ne day indi fitna rek lay tee fitna am moo gën ndax fitna nelaw na waaye képp ko ko yee rek am nga bàkkaar ca wóor na ma ne su tuddoon troisième mandat fitna dana am danañ jaar ci deret ju baree bari kon su taxawee ne defu troisième mandat nun dañ koy rafetlu ci di ko ñaanal yàlla mu àggaleek jàmm kii nga xam ne nii moom la fi suñ borom di teg di ko fuutu yàlla na déggoog réew mi yàlla na jig réew mi loolu daal lañ ci am lu ñuy wax. sept mois yi nga xam moo ko desee lan nga koy lancer message rawatina li des ci liggéeyam mu góorgóorlu ba li nga xam ne moom moom mooy moom mooy manque manquement yi am fii Daaru Manaan mu jàppale leen ci. waaw moom it loolu it moom it moo fi nekk moom la fi suñu borom teg a ah, am nañ sañ-sañu ñaan ko ko ci moom ndimbal ndimbal sax njariñ ak lor moom ma ngay jógee ci suñu borom waaye nag am na ku suñu borom. te jiitalal yàlla moom falut boppam yàlla moo ko fal kon ba ko yàlla falee muy bàyyi nation bi yëpp it lu tee nun Daaru Marnaan gi amuñu lu dul Daaru Marnaan kon ku ñu jàppale Daaru Marnaan ñu jàppale ku ñu jàppale wu Daaru Marnaan mën nañ la bañ a gisati ba faww waaye nag ci ay moyen ak possibilité ak li ko yàlla may daal bëggoon nañ lii ci des mu jàppalee ñu ko Daaru Marnaan Euh, kon xam naa ngir jeexal lay tàggoo comme ni nga ko waxee ci manquement yi bustaan yeeg yooyu rek ak dëkk yi nga xam ne ñoo wër daaru mën naan rek waaw bu euh, bustaan gi ñaari bustaan la ndax fële di yoonu Daaru Rahman moom it bustaanu arifina di tool yi soxna Awa Busa bam bañ ko xaajee dañoo yëkkati fële kër sëñ Matar si la jox kër sëñ Afee Ñang kër sëñ Afee Busa ñu seddale leen ko foofu di nekk sànc ni fii melit noonu la ko yàlla nattoo rek ci wàllu courant wàllu ndox wàllu yoon tam noonu dara lu fa euh, doxagoon amut loolu ñu ngi ciy sàkku ndimbal nii ñu defee dëkk bi rek ci yoon yeeg kii ñu boole leen fa ca xam na di ci dëkk bërëb yi sëñ Tuubaa yàlla bokk waaw. nga xam ne ñoom ñooy bàyyi xel. waaw ginnaaw bu ñu santee suñu xalifa général di sëriñ Fallu Alaaji Fallu Busa Ndumbe di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool wérali cëram di sant sama jëwriñ Cheikh Abdoulahat bu sa ami ndax mooy sama jëwriñ di sant mboolem lu satoo ci kër sañ Afia bu sa di leen ñaanal suñ borom yàggal leen fi lool wéral seen i cër ba bëgg a liggéeyal kër sëñ lépp yàlla defal leen di leen sant yéen ñii nga xam ne yéen a bàyyi seen i bàyyi seen lépp fekk fii ci Daaru Marnaan di leen ñaanal suñ borom defal leen barke defal leen gudd fan defal leen wér Ah, lii ngeen yore it muy télé bi ak rajo bi yàlla barkeel ko ba àdduna bépp dégg ko fu ngeen bëgg mu àgg fa taal yàlla na ko fa suñ borom yeggale bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam barke si jaafe jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Thierno Ndiaye loolu mooy waxtaan bi nga xam ne àndoon nañ ko tey fii ci Touba Daaru Marnaan Bustaanul Muharifina di sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo baaxaw ànd ak ñun rek di leen wax ñuy wéy di bàyyi xel yi nga xamoo moo di chaîne bi rek di ci émission yu am solo yi nga xam ñu ngi ko fi amal wala entretien wala waxtaan képp ko xam ne tam intéressé boo ñu oowee day ñëw fekk si la ci 77 630 05 43 77 630 05 43 wala nga def 77 867 38 84 soo ñu woowee rek dina ñëw fekk si la ba fi nga nekk ci li nga bëgg ñu waxtaan ci incha allah jërë ngeen jëf.